Nous allons vous faire entendre maintenant une déclaration de El Hadj Falilou Mbaké, calife général des Mourides. mbokki Sénégal dégg ngeen El Hadj Falilou Mbaké xalifu Mouride bi waxtaan ak yéen ci olof bu sottalee daraame bi nga xam ne di bëkk néegam dana ko biré ci tubaab. salaamaaleykum. na ngeen nii waa Sénégal yëpp yëpp koo xam yàlla Sénégal wala wolof loolu am si ma mën a doon rek ñu ngi mën لكن قالوا لي انا عميش اكون هذاك بدي وكل يبقى هلك شيء قالوا لي ولا ورد يطلع الا يمين فينا تيجي واحد لو حنا موي سيدي يميت ما ما يمشي ما يجي في شخص واحد ما بدي يت تكو يبشن جامو بدنك جهنمك يدجو تجيبو تيجي يقدر بدي وكل يطلع واحد يجي ولا يجي يجي يخلي في أي أي أي أي جلس هو مكان بدو مكان يطلع هذا يبقى هذا كل شيء غير نزال نعمل ديال نخم سبب تخمني يا من سبب من كل شيء تقولين كلين كده يجي سبب وباخ في كلين كورسي في بيار تجين أك أك أك بقى سبب عندنا مم كل ل ل لابد يمكن مم يهانشون من بعض يهانشون من بعض تكني فيه يا كتم من من من من من من من من من من من من من من من من ngeen dëggal ñoom bu baax a baax ci lépp loo xam ne rek lu bàyyi ko ci ñoom la ngeen dëggal ko xam yéen nag yéen dong ko defal bu dee lu ñuy wax yéen ñuy wax ñu def yéen ñuy defal ñoom ñaan dañu ñëw suñu bopp nii kon nan ngeen dëgg nañ ñaan ñoom rek bañ sa góor ci dara mu leen waral ci mukk mukk mukk ñu baax yaam yaamul rek te kat wala ko xëj gis ko booba tey ñu dem dañu te noppalu bu dir bi ci ñu dox di wax ak wut daan bi ñu bëggoon kon nag gannaaw ñu ubbi nga banque bi te ñoo ko moom an ko téye an ko téye rek wax ne baa ñu wax ne moom Sénégal bii ndax man man Sénégal rek man man dama doon ministre laa ñoo dindi yëpp sama bopp laaj ci kat ak ministre yëpp ak yëpp yëpp bëgguma kenn wax ne Sénégal wóolu wóolu yow rek yow wax digal naa la lii woo naa woo naa Sénégal bii laa wax bu ñu yéen sa sonn nañu lool kon na leen leen dimbale jàpp suñu ñaamoon man amul benn liggéey bu dul julli ci sama jàkk ji ñu dem tool rek ñun yëpp loolu nga seen liggéey ñu ngi rek ku jaamu yàlla dong di liggéey rek moom mu di murit fokk ndigal rek këpp kilif muy naar muy pël wala fu dëkk gànnaar fu dëkk jolof wax ma dëkk rek Sénégal rek ci Sénégal rek laa wax lépp su nag góor rek ndigal ndigal naa wax na ci lii rek man yéen ñaan yàlla mu dimbalee nit ñi bu baax ñu bëgg su ko defee suñu gouvernement bi man suñu doole bu baax baax ci ñu mën a def ñu mën a déggoo bu baax ñëpp baax a baax day bañ léegi nag na ngeen déglu drame bi nga xam ni moo di bëkk néegu alxaaji Fadilu Mbàkke mu tekki leen ci tubaab li nga xam ne moom la alxaaji Fadilu Mbàkke wax ci jamono ji disciple mouride musulman compatriotes sénégalais, notre pays commun, notre cher Sénégal, pays des grandes figures et des grandes épopées, est en train de vivre les heures les plus dramatiques et les plus angoissantes de sa noble histoire. Devant le grave danger qui menace l'indépendance de notre République, je vous convie tous, en distinction de race, de croyance ou d'appartenance ethnique, à oublier tout ce qui peut vous désunir et à vous grouper courageusement d'une façon déterminée derrière votre gouvernement afin de sauvegarder l'intégrité, l'ordre et la sécurité du Sénégal. li ngeen dégg léegi moo di déclaration bi nga xamné ne El Hadj Fadilou Mbacké xalif général di mu def nako ci olof te nga xamné ne secrétaire am bi nga xamné ne moo di dara néegam tekki nako ci tubaab. Maintenant, le marabout Cheikh Tidiane de Tivaouane

àndandoo ak ñii fi nekk lijjanti ko ba mu sotti ñu soog a dellu ci suñu opposition rawatina bi nga xamee ni yàlla dogal na bi moo xew fekk na ñu nekk ñoom ci jàmm mu di xew-xew yoo xam ni bu nu sañoon du demee nii mu demee ci kaw bi ñu ko jëkkee yëngal waxtaanoon naa ci président Dia waxtaan naa ci itam ak ñi nga xam ni ñoom la président Modibo yónni woon ci kaw di bëgg ñoom ci seen bopp ñu gisee arrangé ko balaa ñi nga xam ni ci Sénégal dañu am naqari démb bala ñu ci dugg faj ci seen naqari démb yi wante nag it yàlla dogal na ñooñu faf nañ ci dugg et ko foo xam ni waru fa woon àgg e ma xam ni kon nag li ci des moo man ku nekk xam na ni Mali mësuma ci ànd mësuma ci ànd du càggi nit dama bañ ñëwoon ci Mali mais mësuma ci ànd parce que xamoon naa ni xaw na diis ci wàllu Sénégal te itam ay nit a ngi fi yoo xam ni et occasion rek la wut pour seen naqaru démb yëpp ñu faj ko te xam naa ni ñooñu itam bala ñoo bàyyi Mali rek musiba def ci mujj am loolu moo taxoon ma waxtaan ci ak ñoom et wante nag it lii la ci yàlla dogal bi ko ci dogalee itam. ñun sunu warugar moo di réew mi nun ñëpp noo ko bokk te itam bare naa ci ay seede mag ñi ma ci war waxtaanal yëpp bi mbir mi laataam waxtaan naa ci ak ñoom defe naa ku demee ni El Hadj Omar Lamine Diène wala ku demee ni Thierno Amath ak keneen ak keneen mën nañ ma ci eh, seede ci kaw la ca doon sama xalaat yëpp wax naa leen ko te moo di xam ni Sénégal suñu Sénégal la te bari na kuy wax naan xëy na Senghor catholique la nangam ak nangam fekk na am na loo denc ci biir te ñun ñii ci suñu wàllu bopp suñ ko seetaanee bala nga am nga bëgg ko ci suñu kaw nga jëm loolu moo taxoon ñooñu ma teel leen démasqué wan leen ni ñuy wax affaire catholique ak musulman yépp du dëgg ci ñoom ndax am na loo xam ni su lu l'islam bi yitteele fokk nga def ko ci waaye su fekkee ni nag defaloo ko ci l'islam bi te bëgg a xeex loo nitu l'islam bi daf dul sotti du mën a sotti eh, na kon nag li ma ci wax moo di ñun ci suñu wàll bopp Sénégal suñu réew la bu ci musiba xasee am nu ñëpp nooy taxaw bi moo laata amit wanoon na gouvernement bi ni leen ñun ñu ngi ci seen disposition et que bu fekkee soxla nañu soit renfort la wala leneen am na ñu nit ñoo xam ne ñoom pare nañu bu jag pour que lépp loo xam ne ndimbal la bu ñu war a def ñu dem et li ci des nag moo di benn liggéey waaye liggéey a ngi ci kanam te moo di dafa ñoo xam ni bu ñu defee yàqule ci it du tax ñu bàyyi waaye itam li ñëpp war a xam moo di Sénégal daal takk seen dënn moo leen war parce que mbir la moo xam ne itam du ñàkk yeneen yu ci war topp ci kaw ay demale ak fekkale te ñun suñu bëgg-bëgg moo di Soudan ci wàllu boppam xam ne ñun seen mbokk lañu Côte d'Ivoire xam ni ñun seen mbokk lañu réew yi ci des Haute-Volta wala feneen xam ne ñun suñu mbokk lañu bu ñu jógee ci lii ñu jéem a yeew ay buum yu nga xam ne dafa ñoo boole ci wàllu économique ak leneen lu mu mën ci doon ba suñu Afrique yëpp nekk ci jam tubaab yi fi nekk di ñu dimbale nekk ci jam adduna bi ñuy seetaan nekk ci jam waaye am na ñoo xam ne xëy na bu ñu jógee fii donte ay nit ñu ñuul lañu donte ay sénégalais lañu attan nañu sax jógati di dox lu gën a tas diggante bi xam naa ko ci seen jublu xam naa ko ci seen i xalaat bëgg dal di jël soudanais yëpp def leen ay noon jël sénégalais yëpp def leen ay noon te kooku nag xewul lépp li xew ci équipe bi fi nekk la xew c'est-à-dire responsable soudanais yi nekk biir Sénégal la dox seen diggante ak waa Sénégal waaye doxul nag diggante peuple soudanais bi ak peuple sénégalais bi parce que dama xam ne am na ñuy wàcc liggéey pour foofu te kooku itam ñoom responsable sénégalais yi war nañ ci leeral xalaatu ñëpp war a xamal soudanais yi itam ni ñun defuñu leen ay noon lii fi xewit équipe bii fi nekk ñoo ko doon fexe yàlla def na nag amul yàlla rek ko dogal nag amul waaye bi ko yàlla dogalee beneen liggéey def na ci te moo di loolu loolu mooy suñu waxtaan xam nañ ni responsable gouvernement yi xam nañu suñu taxawaay ci mbir mi waaye terewul itam opinion publique bi ñoo laaj pour ñu waxtaan ak ñoom ci loolu xëy na démb ba tey eh, ñu ngi ko waaj démb ba tey ñu ngi ñoo ci loolu waaye fekkoon na itam rek ñu xam ni eh, bu jotee rek daañu ko def li ñoo ñaan rek moo di équipe bii fi nekk ñun ñëpp ñu taxaw ci seen gannaaw dimbale leen ndax ñetti équipe rek a fi nekk équipe boo xam ni mag lañu ils sont dépassés par les événements bu ñu bëggee diriger Sénégal yi dootuñu ko man ñooñu nañu jàpp ci yàlla honneur bu ñu leen defal ñu jàpp ci ba ba ñu wuy ji seen borom kooku moo gën ak équipe boo xam ne xëy na ñoom defe nañ ni lépp lu communiste yi wax rek mooy dëgg te ñoo ñu itam bu ñu d'accord ak suñu diine suñu d'accord ak suñuy tradition ak équipe bu ñoom Mamadou Diaby kon nag nañoo def foog boobu équipe rek la ñoo mën dimbale mën nañu dimbale beneen équipe ñu ngi leen di ñaanal yàlla nag ñëpp nekk ci jàmm ñu taxaw ñun ñëpp parce que taxawaay jot na ne ñëpp taxaw loolu moo nu war moo war keneen ku dul ñun asalaamaaleykum